pense euh, revenir ci citoyenneté ak lu nga xamante ni moom ay valeur jërëjëf Pape xam nga wax nga ko sànq euh, nite dafa wuyu aw sax ci wolof parce que nite concept boo xam ni ministère de l' nationale dañ ko jël pour mooñ xale yi ak jikko yi nga xam ne mooy jikko yu rafet yi parce que nit bu nitewul nekkatul nit mhm. ndaamal Gosaas daf daan wax naan doon buur doon bummi ca nitewoo bañ doon buur bañ a doon bumi ci nite ma ko gënal. Mhm. nit c'est la personne nite c'est la personne avec les valeurs. nite boobu tey mooy ëmb programme bi ñu yor yëpp boo gisee tey li ñuy wax sax les LINAC. Mhm. les lycées nations armées pour pour euh, la qualité et l'équité. lycée yooyu sax tey jii bokk na ci travail bi nga xam ne ministère de l'éducation nationale def na ko en partenariat avec l'armée lu mel nii moo ko indi. Mhm. indi civisme indi citoyenneté delloo si waat xale yi ci seen i valeurs. c' est extrêmement important. nité boobu nag c' est en train c' est un concept boo xam ne ñu ngi koy déployer actuellement nii. actuellement nii ñu ngi xool avec les communicateurs traditionnels ñu ngi xool avec les leaders d' bërki dem on a fait un atelier à Thiès avec la direction de l' enseignement élémentaire boo nga xam ne on a pris des personnes ressources des personnes yoo xam ne xam nañu taarixu réew mi. xam nañu histoire bi xam nañu valeur ñu man ko à travers les rajo communautaires à travers l' association des communicateurs à travers les les grandes associations pour que ñu def le portage n'est-ce pas de cette grande idée boo xam ni waxuma la xale yi waaye mag ñi sax mën nañ cee jariñoo mm-hmm. parce que nit bu nitewul tuddatul nit te nee nañu sax dañu bëgg nite boobu bu ñu ci jógee ñu jëm ci itte nga xam ni da ngay am itte nit ko am itte nag mooy koo xam ni dem na ba nga xam ne valeur yëpp nekk na ci moom dana rus dana jomb dana ragal dana am lu muy bañ loolu lépp dafa am solo parce que dem nañ ba nga xam ni souvent da ngay dégg ñu naan rus ak jomb ñaari concept la yoo xam ne nuru na mais bokkul li nga rus ki tax nga ruus ko bu fi jógee nga def ko li nga jomb sa juddu ak sa deret doo ko def mukk ci àddina xale yooyu nag valeurs yooyu lañ bëgg am ñu am tey des valeurs de de de de de vertu des valeurs de courage d'abnégation yoo xam ni ku ko ci am doo sa benn morom hmm. ba pare nag nga nekk xale boo xam ni da ngay jàng numérique jàng science ba nga xam ni tey da ngay taxaw ba foo mën a wax ni ñëpp dégg la jii li ñuy wax l'informatique technologie et numérique dañuy dugal cette filière numérique tay tey école yi te ñu ngi koy tàmbalee tey ci à partir de cette ñu ngi koy dugal ñu ngi koy commencé tey ci les LINAC li nag bu mm. Sédhiou ak bu Kaffrine fa lañ koy tàmbalee mm-hmm. lycée yooyu d'ailleurs boo xoolee bu euh, à côté du de la citoyenneté et du civisme mm-hmm. mais les valeurs militaires nga xam ni valeur courage valeur endurance valeur yooyu yëpp dañ koy jël loolu ci xam et c'est mm. mais mais mais ci kii yooyu comment ça s'appelle ci li nga doon wax mooy valeur yooyu et tout gis nañu réseaux sociaux yi yaa ngi wax ne woo dañuy dugal programme ci jàng bi ak jàngale lu jëm ci informatique mais est-ce que euh, je veux dire nan ngeen di contourner li nga xamante ni moom moo di moom moo di réseaux sociaux yi parce que gis nañ ni influence bu mag la ci ñu nga xamante ni ñoom ñoo ñoom ñoo nekk école. xam nga xam nga réseaux sociaux. li ñuy wax la nature a horreur du xam nga léegi nii bi ma lay wax réforme des curricula nee naa la. ce sera un curriculum unifié mhm. articulé boo nga xam dañ koy tàmbale petite enfance ba jëm ci moyen secondaire gis nga xale li jëkk ci moom bu ci jëkkee li li war a jëkk ci moom bu ci jëkkee leneen lu ñëw mun ko yàq mhm. on naa été à Koki avec le ministre de l'éducation nationale mais le ministre et fasciné par le model Koki mhm. cinq mille enfants yoo xam ne kenn du ci fay yoo xam ne dañuy jàng alxuraan suñu paree tey am na ndox sax tey jii am na formation professionnelle. Mm-hmm. ay xale yoo xam ne tey jii boo demee ñu jàng alxuraan ànd kook ab yar ànd ko ànd kooki teggin je crois que loolu c'est extraordinaire. Mm-hmm. sëñ Amadou Sakhir Lo nga xam ne 1939 la ko sëñ Amadou Sakhir mbay way juru sëñ Samb ak Baye Jili yabal. Mm-hmm. guddi gàmmoo la ko yabal yi mu dem ak métit ak difficulté ak loolu lépp mu àndile loolu lépp ba taxawal tey jii daara joo xam ne 5000 enfants. Mm-hmm. nga xam ne tey ji li ci li ci gën a doy waar mooy li ñuy wax la société éducative moom laa la waxoon sànq. Mm-hmm. ce n'est plus l'école simplement de type colonial. Mm-hmm. ce n'est plus seulement l'école euh, bi nga xam ni moom moom moom lañ jàng dem mais c'est l'école ouverte. mooy li ma la wax tey ji ci kokki école boo xam ni euh, ña fa jóge ñi nga xam ni ñoo formé daara ji parce que sëriñ bi laajoon nañ ko loolu ku ñu wax général Amadou Belel li mas na ko laaj ni ko boo fi jógee kan moo yor daara ji mu ne ko doomu daara ñooy dem ba yor daara ji. Mhm. mais doomu daara ji mooy ñan tey mooy Serigne Boub mooy Asndaw Ndukumaan. Mhm. mooy Abdou Aziz Sylla mais mooy nag les pionniers si ku mel ni Atou Khoule ku mel ni El Hadj Madawas Diop ñi nga xam ne ñoo ñoo nekkoon au début ànd ak Serigne bi. Mhm. mais tey mooy mooy mooy mooy tey ce prolongement là. ce type de sénégalais bi nga xam ne dana xam diineem na doon diiney diiney catholique. na doon diine yi mhm. euh, musulman mhm. na doon lu mu gëm mais en tout cas na doon une foi na am lu mu gëm ba nuppi boole koog nag ab yar ak i teggin ak i loolu boo ko amee mhm. réseaux sociaux lu mu ñëw bu ñu defee ndànk rek yaakaar naa du la mën a yàq